mais duñ cee yem dafa am thème bo xamanteni dañ ko choisir aussi ci séminaire de rentrée bi mom moy la restauration des valeurs et du civisme à l'école quelle stratégie moy nan lañuy def ba li ñu gisoon daaw mu nek ay cas de violence ay actes de violence yo xamanteni day jóge ci ndonga dem ci enseignant jóge ci ndonga dem ci ndonga jóge peut-être ci enseignant dem ci ndonga nan lañuy def ba école nek espace bo xamanteni day yar espace bo xam day andi teggin et espace bo xamanteni yi ñuy gis yépp en tout cas dina fa new ndax la violence moom c'est inhérente à toutes les sociétés kenn mënul wax violence du jeex du am mais comme école dafa nekk bërëb bu yar bëgg nañ ci ak thème boo xamante ni dañ ciy waxtaan échanger ci boo xamante ni invité nañ ci syndicat yi nañ ci invité euh, organisation de la société civile dinañ ci invité ay sociologues dinañ ci invité ay kàngam yoo xamante ni buñ ci waxee ba pare ministère de ministre de l'éducation nationale dina ci jël.